engagement ne le de février 2024 du ma jëlee réew mi dinaa delloo Kaolack place am dinaa delloo Kaolack place am te place su Kaolack mooy nekk ci xolu Sénégal place su mooy nekk ci biir boppu Sénégal place su Kaolack mooy delloo Kaolack la mu yoroon démb ak barki démb ba yokku ko mooy Kaolack mooy capitale bassin arachidier du Sénégal. li ñu andi fii tey nag muy parrainage bi nga xam ne mi ngi démarré le 28 février. parrainage boobu sama xol sedd na ci kaw Kaolack ndaxte dañoo démarré parrainage ngeen andil ma 5000 parrainage te xam ngeen ne région bu nekk 2000 parrainage dañ fa soxla te yéen pareegu leen ñi ko directeur de cabinet waxee léegi directeur de campagne ak béru ba gisee bi nga xam ne mooy parrainage wax na ko ci Dakar am nañ presque presque 200000 parrain.